politicien bo xamné ne nañ ko la main dans le sac ak dara ñu mëna lijeenti mu mu génn wala ñu bañ ko japp sax euh, musicien bi nekk ci tolof tolof dara moom bosam fay siiw. <laughs> walla walla mom loi bi droit yu mu wara am du ko am parce que musicien la statut gis nga gis nga vision boobu ñu am ci place artiste dans cette société là motax limu li wax man dal loolu la ko comprendre affaire bi dafa xóot. après non non non mais c'est un secteur aussi qui est désorganisé. non non non non désor non non non non ah, non ah, ah, Adia non. qu'est-ce qui explique la désorganisation non non non mais qu'est-ce qui explique que la musique est désorganisée. voilà qu'est-ce qui l'explique. lui? parce que un intérêt du Ben. ak conflit de génération. non doo faire ñiy jaay ñiy jaay seen intérêt du Ben. ngalé ñiy jaay non pas CD non non Ni di globalement étudiants c'est un intérêt mais non je suis d'accord dans tous les secteurs les intérêts ne sont pas unanimes on n'a pas besoin de que même intérêt mais la gestion si tout était unanime la bah. gestion bi compliquée. mais la gestion elle est simple la gestion elle est compliquée et simple et on choisit une personne pour pourquoi États-Unis un ministre de la culture ça va fii mu ministre de la culture ça va pas. Ah, non ministre de la culture. non États-Unis Amoul. pardon dama mais ça va ah, fii Amoul, mais ça va pas parce que xam nga lu tax musicien ala les les musiciens à l'image des écrivains duñu duñu c'est de de l'art c'est de la poésie c'est une c'est des orientations orientations yi mënul bokk parce que nit yi ku si nekk sa orientation ngay def di ko défendre kii dafa am lu mu gëm di ko défendre hmm. kii am lu mu gëm di ko défendre kii amul lu mu gëm di ko défendre buñ la defee ministre de tutelle si loolu yow yaa war a identifier c'est quoi les objectifs et tout ce qu'il faut faire et essayer de le faire pour que le groupe pour que le groupe et que la démocratie l'emporte mais beneen affaire xam nga lan moo fi am lan moo fi graaw mooy ñun ñi ñëpp dañuy ne wéy parce que vous n'êtes pas organisé vous ngeen pas structuré est-ce qu'on a besoin d'être structuré pour recevoir nos droits si, si, quand même. Structuré légui, légui, je veux dire que yo, ouais, individuellement. Mais, mais comme ça, c'est la pensée, c'est les politiques qui pensent comme ça. Conflit, conflit binaire. C'est les politiques qui pensent comme ça. La structure. Non, non, non. Alors que tu non, mais conflit binaire, conflit il faut relativiser. Non, non, non.

Voilà tel voilà tel pour jot droit Il y a des qui ont maisons de récupérer de recoupe recoupe récupérer say droit pour jox au delà. yow problème pour retirer say pour nangu say droit d'auteur. problème pour. Sénégal il n'y problème pas Sénégal problème. parce que par exemple par et je pense que si ko buñ ko

yalla def na depuis 2003 maa ngi doon liggéey télévision nek na 2S nek TFM buñuy ñuy musique en dehors des émissions classiques ah même bu nek émission sax bo xamné ni émission magazine la musique yi war nañ ko déclarer. mais mm-hmm. nañ japp rek playlist. xam nga légui sax télévision am nañ programme bu njëkk ba dañu doon jàllale musique bu bëree bëri dafa am luñu wax conducteur moy képp ku nek directeur de programme yow la journée da nga wara wax yan musique nga war a musique yoy bu nekkee amna ki am nga musique yoy c'est-à-dire conducteur boobu tu ne le laisses pas juste pour la à la liberté du technicien qui gère du wax technicien de régie mhm. non programme donc ce qui fait qu'à la fin du mois directeur des programmes mën na wax ne man Pape Cheikh jàllale naa fi 10 fois ki jàll naa fi légui lii même bu amul moy mhm. am na ñu wax ay métadonnées dans on est dans un monde maintenant numérisé. Mm, digital. Mais ça ne coûte même pas 50 millions, 25 millions, quand même, serveurs qui sont capables, mais connecter ces télévisions sénégalais, yep, bout de l'eau, avec des robots, ils vont dire les soirées, ils vont ci ci ci Excel. automatiquement non je veux dire. SODAV moo ko war def. mais mais ils ont pas acheté la machine. Non, non y avait quelqu'un qui avait proposé la machine. ils ont pas acheté waaw ce que je dis moi, tey c'est grave ñoom dañuy xool ne. année bi euh, semestre bi y a 600 millions wala y a 200 millions à à distribuer yow pap Cheikh bo ñëwee ñu ne pap ah, Pape xam nañ la ok bon am nga fi 2 millions Youssou Ndour am na fi bon disons 20 millions tu vois.

bu ñu nee euh, Ngora Ndour moom moo nekk euh, kii ba pare nga am sa label tu vois am nga am nga am say artistes tu vois euh, PCA on sait pas PCA bi fay jël ay décision yo xam ni peut-être directeur bi moo jël parce que donc ça veut dire que organisation sax c'est assez compliqué par rapport à, par exemple gestion donc le problème yooyu ñëw ci Sodav fay tax que.

<laughs> donc minutes et puis minutes euh, euh, non non non euh, mais il y a 20 ans yoy yeb amu man je comprends très bien parce que suivre je comprends très bien te man ci parce que man sama liberté yor Problème yi gars di tek c'est des problèmes réels mais amna lu mu wax tamit moy ni li mu wax ci copie privée nañu appliquer et tout teewul problème yu ma am yi mu am ak SODAV yëpp teewul xamna ni copie privée par exemple war nañ ko mën def ñu appliquer ñu def ko affaire yi maintenant répartition bi nu muy démé ak affaire yoy yoy tamit ay xex la pour man pour man c'est des combats c'est des combats qui se mènent affaire bi demeewul lenn gis nga peut-être li nga wax noonu nan conflit d'intérêt Bo demee c'est pas écrit c'est pas écrit justement hmm? nit ñi nañu xex pour ñu bind ko bu ko bindé Nan euh, Adia yo da nga am label lo nek euh, PCA diw euh, kii mais do ko nek parce que de gérer le même problème se pose au comité de gestion mhm. le, au comité de gestion du FOPICA cinéma le même problème se pose problème parce que da ngay toog comité boo xam un producteur est là-bas il est impliqué dans cinq ou six films yo xamni ne mu ngi laaj projet yo xamni ñi ngi laaj ay financement même chose xam nga yoyu mais yoyu yoyu pour mana, ah, ay combat la

mais dafa bagn mm-hmm. mune par éthique du ko def duma ma sama sama projet ñu parce que bu ma ko dugalee parce que membre la gars yi nañ mako jox. té man lolu je serai pas à l'aise dafa yoron projet école de formation bu bien mais mune man du ko def ñeneen yi